lool nak dara du ko def nit lu may yeb yëg ak bëgg bëgg ak roy bu ngeen ko defee rek serigne touba dana leen waat dana leen waat ci tànneef yu mu tànn ngeen doonaat ci ay tànneef waaw loolu rek lañ bëgg ci yéen liñ bëgg ci yéen fépp fu ngeen taseeg seen morom seen jëmm soññ ko seen jëf soññ ko seen wax soññ ko waaw mu wóor leen ne fépp fu ngeen taseeg nit mu gis ci yeen lu muy xebe bu gatché lu leen seen bop man ngeen gatché kon na ngeen fexé bu fu ngeen ku ngeen mëna a na gis ci yeen lu koy dolli bëgg Sëriñ tuwa na gis ci yeen lu koy dolli bëgg yalla gis ci yeen lu koy dolli bëgg yonent bi gis ci yéen it tënku ci seen ndigal ndax ndax ku bëgg ku ne da nga roy da nga jëf kon lool rek lañ bëgg ci yeen waaw bu ngeen nu ko defalee rek defal ngeen nu lépp defal ngeen nu àddina ak li ci biiram waaw waaw bu ma na ngeen fu ngeen nekk na ngeen fexee baax man bu ma baaxee na ngeen baax bu ma bonee na ngeen baax loolu rek laa bëgg ci yéen bu ngeen ko defee rek defal ngeen ma li ma bëgg lépp defal ngeen ko Sëriñ Tuubaa baax nag nekkul ci lenn nekkul ci fenn nekkul ci kenn lu may ci kiy def li yàlla digle di bàyyi lim tere saa yoo ko saa yoo ca nekkee kenn gënatu la waaw boo ca nekkut ak koo mën a doon ak foo mën a bokk ak ku la mën a jur baaxoo te baax doomu lañ bëgg waaw baax lañ bëgg baax la sëriñ tuba bëgg ci ñun sëriñ tuba bañ na ko ba ne woon baax nekku tënkuma kenn fi man rek fépp fu nit gise lu baax yaakaar ne boo fa demee baax tinki naa la demal fa wuti baax ndax bëgg ngeen baax rek la la bëgg waaw loolu ñu Sëriñ Tuubaa bëggaloon nag moom laa leen bëgg waaw képp ku ngeen gis mu baax ànd leen ak moom ca mbaax googee te roy ko képp ku ngeen gis mu nekk ci safaan bàyyi leen ko te maandu ci moom euh, te nekk ci te nekk ci lu baax xam ne looloo leen di jëriñ waaw loolu nag bu ngeen wéetee ak bu ngeen wéetalikoo nekk leen ci waaw ku ko ci defit danga gis njëriñ la waaw lépp loo xam ne nii tax na ñu fàtte yàlla wala ñu nekk ci lu warut ak ku mën a doon ak fu mën a doon bis dana ñëw da nga ko fa bàyyi te da nga ko rëcc te wax ko wa nga koy rëcc doo gis kenn ku la ci dimbale waaw ku la tax a fàtte yàlla bu ëllëgee bu rëcc ñëwee du la du du la ci dimbale lu la tax a fàtte yàlla bu ëllëgee loole yow da nga ko ñàkk barab bu la tax boo nekk it leneen nekk fa ci wéttaliku wala ci addina ba tax nga fàtte fa yàlla yi da nga dem ba rëcc ko te da nga xam ne loolee jëru ko kon fu ngeen nekk ku ngeen mën a nekkal ak ci lu ngeen mën a nekk di leen bàyyi xel yàlla di def ngir yàlla di bàyyi ngir yàlla loolu di jaamu yàlla yéen ngir yàlla waaw ba ci jaamu yàlla gi nay doon ngir yàlla bu leen jaamu yàlla ngir bëgg ci dara di leen jaamu yàlla ngir yàlla mi leen ko digal ak bëgg yàlla waaw jaamu yàlla ngir bëgg àjjana ak ragal sawara sax weesale leen ko seen di leen jaamu yàlla ngir jëmmi yàlla ngir màggal yàlla ngir digal gim leen ko digal ngir bëgg gim ko bëgg ci yéen dee leen ko def rek ngir loolu te bàyyee seen bopp ak Sëriñ loolu rek lañ bëgg ci ñeen bu ngeen wéetee ak bu ngeen wéttalikoo waaw bu ngeen ma gisee ak bu ngeen ma gisut waaw bu ngeen ko bu ngeen ko defee lu ngeen bëgg da ngeen ko am kon yal na leen yàlla saxal ci loolu te saxal na ci leen yàlla saxal ci loolu te saxal na buñ bokk ci ñuy gécceel Sëriñ Tuuba waaw buñ bokk ci ñi nga xam ne keneen dana leen xool di gis ci moom lenn loo xam ne nii sëriñ tuuba dara kenn mënu koo xeeb dara mënu koo tuutal kenn mënta yàqu dara wante nag yàlla buñ bokk ci ñi ànd ak moom ba noppi di def lu lislaam bañ wala ñuy def lu neexut yàlla wala ñuy jëf jëf joo xam ne sax yonante bi mosu koo jëf yàlla buñ bokk ci ñooñu yàlla bu ngeen ca bokk jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ni ngeen góor góorluwaat ci koor gi lexlaas yi ñu leen jox ngeen koy jàng jigéen ñi na ngeen leen ci jox seen wàll ndax bu ëllëgee yéen ak seen bàmmeel ñoom ak seen bàmmeel waaw lu ñu leen jox yéen ak jigéen innal muslimina wal muslimaat bu ëllëgee kenn ku nekk bàmmeelam ku dugg ci sa bàmmeel loo fa dugalutoon doo ko fa fekk loo fa jiital muy lu baax boo demee da nga ko fa fekk kon lépp lu ngeen di def na ngeen ko ànd ak ñoom di ko def te sax ci lu baax da ngeen sax ci lu baax sax leen ci lu baax bàyyi leen lu bon sax leen ci lu baax bàyyi leen lu bon man de wax gii ma leen koy wax rek gëm xam naa ne baaxuma woon wante saa yu ma